bi tey ñu waxtaan tuuti ci euh, nouvelle ordre mondial wax the new world order ndax man daal tey jii wax nañ ma ne euh, ourson waaju ñàkk jom boobu xam bu ma tudd turam wax nañu tey dafa waxtaan ci biir waxtaanam ba tudd ko n'est-ce pas man kooku dama ko bàyyi déglu ndax fenkat la dafay fen waaw man ki may wax moo tudd mooy tudd Macky Sall waxuma waxuma keneen nag Macky Sall laay wax j'assume ce que je dis dama ne fenkat la musul wax dëgg euh, sénégalais moo tax dama dama tàyyi léegi di ko déglu man vraiment déglootuma ko donc koo ko dégluwul nag mënoo analyser te mënoo décrypter discours am je pour pourrai pas malheureusement donc moo tax euh, par mandu mënu ma taxaw di discuter li mu waxtaan li mu waxtaanul ndax man ci fenkat yi laa ko boole man du ma ko dégluuti bàyyi naa ko déglu pas waaye nag euh, bu ñu ma interpellé ci benn baat bu mu jëfandikoo te baat boobu nekk baat bi xam daf ñu ñor ñun trop ñu ñu tàmm koo gëstu tàmm koo gëstu depuis bu yàgg ba pare xam baat boobu lu muy impliqué wax dëgg yàlla dafay important que ñu ñëwaat tuuti ci wax ci baat boobu euh, baat boobu lay tekki n'est-ce pas euh, dugguleet nag euh, man dama yaa wax naa ko fii du benn du ñaar n'est-ce pas du benn du ñaar nee naa Macky Sall loge maçonnique yi ñoo ko moom ay kilifaam Sénégal amu fi kilifa amu fi benn sëriñ wala benn homme religieux bi nga xam ne euh, moom nangu na kilifteef Macky nanguwul kenn kilifteef n'est-ce pas donc euh, macha allah waaw Djibril Ngari Guèye mu ma xëy jox ne il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial qui met l'humain et l'humanité au cœur des relations internationales ensemble mes chers compatriotes tenons bon waaw wax ji xam nga wax ji déjà waaw man lii sax naa ci mën a naa ci mën a waxtaan voilà parce que euh, li mu wax nii c'est très important il parle de l'humanité il ne parle pas de spécificité, il ne parle pas de chèque, il ne parle pas d'ascan, il parle de l'humanité, nest Et effectivement, dans la vision du nouvel ordre mondial, il s'agit de construire un gouvernement mondial, il s'agit de construire une seule humanité, il s'agit de, démanteler les contingences euh, nationales, régionales, ethniques, ethnies, ethniques, ethniques, ethniques, lépp ethniques, ethniques, ethniques, ethniques, ci nouvel ordre mondial ak euh, ñan promouvoir en tout cas xam ni euh, Macky Sall donc euh, c' est vrai que temps yi dafa am dañoo def euh, sax loi d' habilitation moom plein pouvoir bu tax gars yi temps yi gën gënuñ ko ragal <laughs> ndax temps yi it daa war a gën a mën a ak gën a mën a <laughs> ñun moom xam ne dañoo dara donc ñu yàlla tax ñuy wax donc pour dire que euh, wax naa ko barki démb fekk ñoom eh Lord Lord maa ngi lay ziar kii moom sama jarbaat de kër la Lord maa ngi lay ziar bu baax a Euh, di la nuyu di la wàccee sa wàccuwaay macha allah ah, moom Lord moom nit ku macha allah nit ku am njëriñ la nit ku utile à la communauté macha allah yàlla na yàlla fay ko yiw donc je rek barki démb <coughs> si ñoom Cheikh Salim Kébé ba ñuy wax waxu ay doom naa ko laal tamit tey nañ si waxtaan tuuti ba ñuy waxu doom mu leen discours doom bi du lu bees may fàttali ne Macky Sall euh, himself def na fi wax maa ngi maa ngi copie journal bi naa soo bëggee naa publier après incha allah. mu ne moom le PSE pour mu marché. il faut que nit yi wàññi seen jur bi il faut que les femmes am au maximum trois hommes, les femmes sénégalaises li Macky Sall moo ko waxal boppam li wax ni ça fait quelques années hein. naa leen partagé la après incha allah le l'extrait du journal donc ñoom ñëpp ñu bokk ci euh, ci ci ci mbir moomu ci kuréel yooyu ak ci philosophie boobu. ñoo bokk gis-gis ñoo bokk yëg-yëg ñoo bokk xalaat naa si naa si ñëw léegi incha allah pourquoi ma wax loolu donc par rapport au nouvelle ordre mondial dama leen conseil tamit yeneen ay lecture dama leen conseil ñaari livres yoo xam ne livre yu am solo la mun naa wax ñett sax waaye ñaari moom vraiment dañoo am solo trop muy livre bu ñuy wax 1984 bu George Orwell bind li bu am solo li bi c'est très intéressant japp naa ni ku nekk war na ko lire ndax am na lu bëri lu ci mën a jàng am na lu mu mën a yee ci ci ma maanaam ci gis-gis yi nga am waaye yamul foofu tamit euh, le meilleur des mondes bi nga xam ne Aldous Huxley moo ko bind livre boobu tamit livre bu am solo la bi nga xam ne je vous le conseille ñaar livre yëpp ils sont disponibles en PDF soo leen tapé internet euh, vraiment PDF 1984 PDF le meilleur des mondes PDF

n'est-ce pas euh, bokk na ci euh, nte sax ci organisation yooyu mun naa ne euh, the Council on Foreign Relations donc bi xamé moy CFA le CFA organisation bu doy waar bi xamé xam ne au siège américain tam nañ ko tàppee n'est-ce pas le CFR c'est ñu ko tàppee di nga gis lan lay yëngatu lan lay jéem a tabax dans le monde euh, par rapport à la vision américaine, par rapport à la politique étrangère américaine, parce que les États-Unis ont une vision hégémoniste, ils ont une vision dominer le monde bien. Donc, on voit ça par rapport au dollar, par rapport à beaucoup de choses, euh, Machallah. D'accord, c'est Diaye Il a la de regarder Maki, il m'a dit bulldog. Billahi, Maki, man, je ne peux pas dire. wax dëgg yàlla man nit ku ma fen benn yoon nga fen ma ñaareelu yoon ma daan la ngantalaat mais nga bëgg dëkk di ma fen chaque jour après ma toog la déglu vraiment ma damay jàppale pertal te temps boobu naa dem def leneen n'est-ce pas donc euh, macha allah ah waaw ak Ibou waa zig bi ñëw ku ñuy wax zig bi ñëw Brzezinski kii moom vraiment euh, dinaa ko tudd léegi sax parce que kooku dafa am liggéey bu am solo bu muy def moom dans la commission trilatérale dañuy wax la commission trilatérale bi nga xam ne on l'a créée en 1973 n'est-ce pas commission bi nga xam ne Rockefeller bokk na si si voilà si am na lu bëri lu ci ñoom Rockefeller y a beaucoup de personnalité euh, sëñ bi niw boobu nga xam ne il a une euh, vision bu euh, macha allah macha allah bu intéressante moom il a fait ñu wax le grand échiquier livre am boobu moom en géopolitique lu am solo la waaw le troisième le troisième livre je vais dire Le Prince à lire Le Prince bu Machiavel donc euh, parce que lii yëpp ci ci manipulation ci instrumentalisation ci implication le livre yi dox ngay gis àdduna bi du muy muy nu kilifa yi jeere àdduna bi les hommes politiques naka la ñu gisee àdduna bi ñom et fan lañu bëgg yóbbu doomu aadama yi n'est-ce pas donc la commission trilatérale ci la bokk ak ñom ñoom Rockefeller rek ñep nga xamé ñom ñoom ils en font partie n'est-ce pas le groupe Bilderberg maa ngi gis léegi aaroon ñaa mu ko effectivement groupe tam bi nga xam ne tamit c'est des personnalités yu am solo ci àdduna princes des des des anciens premiers ministres des des des des des responsables de banque bi fam ñi nga xam ne ñoo yor ndogalu àdduna bi ñëpp ñoo am ay kuréel genre ay daayira yoo xam ne dañu ko bokk ñoom di toogandoo di planifiendoo ban àdduna la ñu bëgg ak lan mooy problème yu mën a laal àdduna bi jamono jii yan problème la ñu war a régler suñu bëggee suñu àdduna bi gën a neex suñu ay intérêt ñu gën koo ñu gën koo mën a téye ñu gën koo mën a doxal donc c'est très important ñuy bàyyi xel ne que y a des groupes qu'on de des think tanks wala boog de des de des voilà des des lobbies wala des groupes secrets wala des puissances yi xam ne à l'ombre ñu ngi réfléchir si fan la ñu bëgg yóbbu àdduna bi ndax gis nañ ne bi euh, masse bi amul xalaat te masse bi foo ko diri mu mu topp la donc il faut ñu am ñu koy xalaatal donc ñi ñoom dafa am ñi nga xam ne euh, lu am solo ñu war a bàyyi xel. mais yemul si groupe Bilderberg le club de Rome tamit ci la bokk li ñuy wax le club de le club de club bu extraordinaire bi nga xam ne Rockefeller moo ko créé ça a été créé en 1968 moom it c' est des personnalités extraordinaires ñoo si bokk ñi nga xam ne vraiment des des des des chefs d' entreprise donc euh, ñi nga xam ne c' est des ñoom à eux seuls kese c' est des gens ñu wax les plus puissants du monde maanaam ñoom ñoo bokk ci club yooyu. lu tax mais cité club yëpp naa si ñëw léegi lu tax ñu mën a comprendre nouvelle ordre mondiale bu ñu koy toggee n'est-ce pas Donc la fondation Ditchley, fondation Ditchley elle a été créée en 1958 ku ñuy wax Sir David Wills David Wills qui ko créé woon des c'est des monarques c'est des chefs d'État, c'est des c'est des hommes d'affaires, c'est des grands banquiers qui ont beaucoup ci ci fondation boobu di xalaatandoo di yëkkatandoo di dóorandoo n' ce pas The Bohemian Club le Bohemian Club a été formé créé euh, par des journalistes, par un groupe de journalistes en Californie, aux États-Unis, n'est-ce pas Donc, euh, Machallah, euh, depuis 1800 et quelques, 1872, je pense, hein, donc, euh, Machallah, le club lui l'État, c'est que dynamique mobile, n'est-ce pas donc à côté de ces clubs là de ces voilà des clubs de rencontres là moi, a des organisations qui sont purement maçonniques n'est-ce pas je vais citer par exemple Skulls and Bones nga Skulls and Bones c'est lu là euh, l'Américain, euh, George Bush, il en faisait partie, il, fait, partie de cette fraternité-là, c'est une fraternité, n'est-ce pas, qui, était à, qui est logée à Yale, l'université de Yale. Si on Yale fàttaliku leen suñu woykat bi nga comme woy mu On euh, nga que docteur honoris causa <laughs> waaw nous koy Curzon Bonds le chapitre 322 non la ñu koy sax dans la terminologie euh, des initiés le chapitre 322 n'est-ce pas Skulls and Bones boobu Mohammed Ben Salman le prince héritier màkk sax moom fa la bokk n'est-ce pas il a il il nourrit des projets satanistes yi nga xam ne euh, waaw des projets satanistes yi nga xam ne euh, moom la ñu naral fële ca ca ca Arabie Saoudite n'est-ce pas C'est pas le a ay Phi sax Phi Beta Kappa il y a yoo xam ne clubs yooyu c'est des clubs secondaires c'est moom dañoo am puissance bi xam parce ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo yor ay ndombal tànk nga dañ cee bokk n'est-ce moo tax mu am solo les francs-maçons les Illuminati euh, ñii ñëpp dañoo bokk benn benn affaire seen ay réunion bëgguñu kenn fekkee ko c'est éminemment secret li ñu fay waxtaanee kenn xamu ko nekkul n'importe qui mu fi mën a bokk maanaam ñi nga xam ne ñooñu la ñuy wax ne. ñoom ñooy doxal adu bi ñi la ñu wax ni ñoom vraiment ñoom ñoo ciy bokk waaw euh, Skills and Bones même nyom nyom nyom nyom ñoom Kerry ñoom John Kerry y a beaucoup de personnalités américaines fa lañ bokk ah ils font partie du, des Skills c'est des Skills hein Skills and Bones sa baat bi sax moo njëkk ragalul sax baat bi ku baaxoru cee bokk Skills and Bones mooy ay ay crâne ak ay yax waa crâne ak yax nag wax dëgg yàlla nag lii moom su jumul ci anglais lay tekki de <laughs> waaw loolu moom vraiment moom waaw man loolu moom ku ma si bëgg boole dama si bokk waaw man ay karaan moom bëgg moo sax gis film yi horreur sax bëgg ma ko sànn wax dëgg yàlla donc euh, lu baax kon ñu mën a comprendre ñii ñëpp ils ont en commun benn vision bi nga xam ne je vais je vais dire c'est une vision eugéniste du monde c'est-à-dire que lan mooy eugénisme eugénisme mooy benn vision bi ñoo jàpp ni les meilleurs ñoo war a ñoo war a continuer am ñu ñu les meilleurs n'est-ce pas euh, les faibles, les, les, pauvres, les malades, les défectueux, les handicapés. Donc, beaucoup de on doit les faire une purge pour nettoyer le monde. Faites-le le xéru Guidestone yoyu, n'est-ce pas, avec les langues là, les huit langues ñu waxé, xéer yoyu nek fële ci Georgia. xam ndax xam ngeen euh, monument ba monument ba gars en granit ah kenn mënu la wax kan moo ko tabax ah gars yi bëri xamuñu kan moo ko tabax ba tey donc euh, mu fës am ay am lu bëri fi bind ci ay principe dañu war a wàññi population aduna bi à 500 waaye yëpp ay naxee mbaay la du l'objectif réel c'est 5 milliards maanaam dañoo war a diviser euh, la chose en deux fii léegi 2100 ñu mat waruñu dépasser 5 milliards moom avons bi war ko mës a dépasser ñoo jàpp ñoom chiffre la bi nga xam dans beaucoup de congrégations tu vas voir ce chiffre là pour ñoom 5 milliards l'humanité waru ko waru dépasser ce pas actuellement nous sommes à 7 milliards et quelques si toute chose continue nous serons à 9 milliards d'ici euh, la fin de la décennie, c'est loolu dafa extraordinaire donc comprenez que les eugénistes déjà avec les darwinistes le darwinisme et ont une préoccupation déjà euh, de population lii moom ko xel ils parlent le même langage sur la population c'est des adeptes de la ce qu'on appelle le malthusianisme maanaam ku ñuy wax Thomas Malthus ben bi il a fait une théorie sur euh, voilà les richesses les personnes ku nek ñu avancer etc. n'est-ce pas donc euh, ils travaillent ensemble sur ce qu'on appelle l'homme 2.0 le nouveau le nouvel homme bu baisse qui ñu tabax ci n'est-ce pas ils travaillent sur la dépopulation dépopulation ils travaillent de diverses manières par des vaccins par des par des guerres qu'il va falloir créer par des par l'homosexualité qu'il faut encourager góor jigéen su baree doom du mën a am n'est-ce pas par la limitation des naissances yu war a def ci àdduna bi dëkk yu bëri par ñu war a encourager euh, nu mu tëdd sax euh, ay nu mu tëdd sax césarienne nag pour xotti biiru jigéen yi et cetera par li ñu war a piqûre yenn xale yi jigéen yi si ay au nom de xaw ma euh, utérus rek xaw ma lanu utérus ay cancer du col ak nangam ba yàq seen bu tunjurin bëgg duñu mënti am doom par ñu war a encourager ay góor sax ñi bañ am doom n'est-ce pas ba dañu war a taralee àdduna bi ba pauvreté ba nit yi duñu tàllaa am doom parce que ñu jàpp am doom day nekk problème dans beaucoup de pays on va sécurité sociale yeeg y a beaucoup de y a am doom fi ñu jëm ni instant ñoo bëgg sax def ay règles yi xam ne wax dëgg yàlla euh, règles yooyu suñ sa yeggee am doom du yombati xam wax naa fi def naa fi benn live sur la théorie du genre je vous recommande naa ko yeggal sax théorie du genre numéro la sexualité sax va changer n'est-ce pas la sexualité va changer de visage des li de grave les acteurs de la santé les médecins ils sont même pas au courant de ce qui se fait et ce qui se trame oui le planning le planning va être encouragé un peu partout dans le monde depuis le lycée on va tout faire pour xale dafa sexuelle carrément n'est-ce pas et wax dëgg yàlla mm-hmm. à travers l'alimentation nañ gën a yàq yaramu doomu aadama ndox bi déjà sax avec le chlore bi def ci biir ndox euh, donc dafay dérégler le système immunitaire les vaccins yi xam ne vaccin naa vaccin moom naan defal live spécial sur la pour les vaccins surtout l'effet du du mercure l'effet de de la scalène dafa am ay gëstu yu bëri mu ci def yoo xam ne bëgg naa ko partager ak yéen parce que man déjà samay doom man nangu muñu vacciner leen man du scandale bu ndaw bi moo tax de man dama nangu ñu vacciner samay doom depuis et j'ai mes raisons te loolu tamit gis naa ni ak on xew jamono bi war naa ko partager Nous euh, ñun ñëpp nga nous bi comprendre quels sont les enjeux qu'est-ce qu'on veut faire à l'humanité euh, c'est vrai que peut-être sooy xaw a xool wala di xaw comprendre yéen ñi da ngay mujj dem ba parano donc mais euh, on va partager inshallah, on va le partager pour wax de yàlla mën nous mu n'est-ce pas donc mu baax kon ñu comprendre ni ñoom ñëpp ils le même langage temps yi Tony Blair secrétaire général des Nations Unies Macron Hollande Sarkozy tout le monde ñëpp ils disent la même chose il faut surveiller ce qu'on appelle le croix démographique c'est pas la population santé mais le croix démographique moo leen jaaxal déjà maa ngi zone CEDEAO bi rek euh, le taux de fécondité par femme tourne autour de 5,8 enfants 5,6 5,8 enfants donc c'est le taux le plus élevé du monde

maanaam li li Macky Sall l'humanité toute entière c'est que le projet c'est contre l'humain en réalité on prépare une suite bi nga et ragal à terme mais vraiment les robots auront auront une vie euh, plus merveilleuse que les hommes sur cette terre là et fii ñu bëgg yóbbu n'est-ce pas bu ñu ba am doom sax da ngay am demande d'autorisation pour am doom bu ñu ba ëmb ëmb sax jigéen du ko defee te koy tere ndax dañuy jàpp ni ëmb dafa am ay risque c'est un peu animal c'est archaïque n'est-ce pas ay boot moom waxaale wu ma ko ay boot ak ay yooyu waxaale wu ma ko n'est-ce pas ay yëpp dafay dañ koy acté utiliser les organisations féministes utiliser beaucoup de choses yoo xam ne ñoom ils ont des moyens quoi sincèrement ils ont l'éducation l'école ils ont les les médias ils ont les stars yoo xam ne ñoom ñooy gën a influer gars yi la mode n'est-ce pas ils ont beaucoup de choses quoi yi nga xam ne wax dëgg yàlla oui Souleymane Ndiaye l'homme cyborg vraiment man euh, je m'inquiète bu baax a baax Origine 2100 kaw qu'est-ce qui va se passer sur cette terre là bon xam naa du ma fekk nag mais je réfléchis quoi man ce qui va se passer n'est-ce pas pour revenir à notre débat du peut du nouvel ordre mondial bu américain di wax de new world order n'est-ce pas donc euh, Robert Welch en 1958 euh, dafa def benn jàngat am nu mu the insiders nest pas de insiders Robert Welchbon, ont dox des sax ci États-Unis dem outil papier outil keppit lépp pour que les États-Unis tan ci ONU ndax il avait compris que l'ONU n'est-ce pas euh, n'est-ce pas l'ONU a un rôle à jouer dans cette mondialisation dans la création de société universelle n'est-ce pas il n'est pas le seul beaucoup d'autres acteurs ont écrit des livres dans ce sens-là je vais parler de John Coleman bi mais écrit un livre de The Road to Slavery nest pas The Road to Slavery nest pas la route vers l'esclavage n'est-ce pas livre yu ah, am li livre yi def après sama page je vous le conseille wax pour ceux qui parlent un peu anglais lire lingo, lire quoi vous vous serez vraiment surpris et lisez ça depuis la depuis siècle ba lay passé la vous comprendrez beaucoup de choses qui sont en train de se passer des choses qui sont en route de se passer chez vous, n'est-ce pas donc euh, lu bat a bàyyi William Jasper avait écrit un livre mu tuddee Global Tyranny step by step, n'est-ce pas, la tyrannie globalisée, étape après étape. Comment on va installer, n'est-ce pas, comment on va installer la tyrannie dans le quotidien et dans la vie des hommes, n'est-ce pas. David Rockefeller, c'est quelqu'un qui tout par rapport à la commission trilatérale, par rapport au club de Rome, qui dans ses mémoires que euh, lui et sa famille ont toujours travaillé contre les intérêts des États-Unis n'est-ce pas moom il travaille pour un autre agenda bi nga agenda mondialisant, la dafa bëgg créer ben seul ben seul ben àdduna bi ben ben jitt jiit moom ñenn ñu koy jiite groupe bu ndaw bi xamé borom alal yi ñoko wara jité a ñu ni siège aux Nations Unies à New York moom mo leen ko may n'est-ce pas il se présente comme étant un philanthrope attention il a son agenda bi xamé xam ne dinaa ñëw la bëgg liggéey. n'est-ce pas loolu doon liggéey Rockefeller boobu tamit il est membre des sociétés secrètes Illuminati la bu mag la woon euh, Machallah. Donc, ça me rappelle euh, Émile Florence, qui était ministre français, il avait parlé euh, du fiasco, le, fiasco maçonnique, n'est-ce pas donc le fiasco maçonnique bien nga euh, à l'Europe du XXIe e siècle à l'ère chrétienne donc oui bah, Sadikh ñoo bokk ñoo bokk mbuus Soros moom c'est une crapule c'est une crapule bien nga pourtant Sénégal il y a fi ay ay ay soi-disant activistes bien moom moo de financer, n'est-ce pas donc il finance beaucoup de choses y a ne qui vont en droite ligne par rapport à sa vision et sa vision c'est une vision bi nga ne mondialisante naa si ñëw léegi si te loolu waxam la Soros waxu ñoom Jacques Attali la ils disent ils parlent ils ont le même langage c'est dama bëgg comprendre ni tant que nous ngi de manière sectorielle peut-être duñu comprendre mais si xoolee gars au niveau au niveau grand format léegi si gars yi ñoom ñëpp ñoo bokk mbuus ñoo bokk lu ñuy wax ñoo bokk ni koy waxee n'est-ce pas donc euh, Florence il parlait ça, il était ministre français il parlait même d'un coup d'état contre le papisme pour les maçons créer par rapport à la société des nations ils veulent créer une société mondiale avec coup de justice mondiale c'est un fait la mondialisation a ça n'est-ce pas donc je vais vous le nouvel ordre mondial n'est-ce pas et eh, Ben Talib borom briquet bi <laughs> et eh, respect mon frère waaw c'est vrai que nak euh, ñu bari fi ñu woy ñuy woy activistes ne sont pas des activistes n'est-ce pas man xamal la laa leen mais ce ne sont pas des activistes ils activent absolument rien ils veulent vivre au, au, sur le dos de quelques combats n'est-ce pas ils n'ont pas de voilà ils n'ont pas de. sóob rek ay sóob man lañu n'est-ce pas les grands activistes yoo xam les super grands comme ñom Ben Talib bii la mel waaw comme ñom ñom Babacar Sadikh euh, l'homme du Corona ñooñu ñoy les grands activistes ñam aruna ñam wi ni c'est des activistes n'est-ce pas euh, ñam Lord Lord Bersa ngi fii c'est macha gars yi ils activent positivement et ils ne vivent pas de li def dañ koy def ngir yalla di liggéeyal askan bi n'est-ce pas taakalew ñu kenn naxasaalew ci kanamu kenn donc ñi big up à ces gens là n'est-ce pas mais voilà c'est ay soi-disant activistes yoo xam ne kenn xamul lu ñuy liggéey nek say agenda yu louche n'est-ce pas agenda des des des des philanthropes des maçons wala agenda wu c'est pas agenda wu des des des homosexuels ay ñi nga ay ay ay góor jigéen lañu mais wax dëgg yàlla agenda yi moom mënoo taxaw ne activiste nga di nangu jël seen xaalis si ko lekk n'est-ce pas xaalis boobu waroo ko a jël pour être conséquent et cohérent la wax de am na xaalis yoo xam ne waroo ko nangu laal n'est-ce soo ko jëlee nag mooy tu n'es pas cohérent mooy da ngay naxasaale kese yow da ngay liggéey waaw waaw Abdou moom moom mention spéciale Abdou Karim xurum xàq ki c'est un activiste au vrai sens te kii dafa dafa joxe bakkanam ngir Sénégal kii Sénégal yëpp ko amee njukkal moom ak ñoom Guy Marius n'est-ce pas mais c'est des gens yi xam ne que ils son rares mais ils sont ils doivent être respectés on doit les respecter on doit les aimer ndax dañoo seen lépp ci Sénégal bi lañ koy def n'est-ce waaye ay ratavistes yi ñu wax les ratavistes la kañe yu mag yi nga xam ne dañuy dund oh, ci kaw jaaxle doomu aadama yi n'est-ce pas turian sàcc yooyu am na si nga xam ne ñu ngi bitim réew fële yor seen kanam yooyu mel ni seytaane yooyu mel ni tudd di def ay live rek di di di di waaw di di naxasaale eh, doy na waar daal na waar waaw doy na waar uti nañu daal sama gars yi waa Petro-Tim a ngi fii donc euh, macha allah et eh, Chérif Atijani <laughs> waaw d'accord. accord naa yow activiste nga <laughs> donc euh, par rapport au mot euh, Nouvelle ordre mondial en matière de géopolitique ñu bëri dañoo jàpp ni c' un mot qui voulait exprimer wala boog expliquer benn situation bi nga qui était post guerre froide guerre froide moom xam du ko jàngal xam ngeen ne il y a eu une pseudo-guerre froide entre les États-Unis et la Russie, l'URSS, n'est-ce pas Un conflit d'ordre idéologique, n'est-ce pas D'ordre, je vais dire, scientifique. Ça s'est passé sur l'ensemble des, points scientifiques, technologiques, euh, économiques, idéologiques, politiques, n'est-ce pas Donc, sur tous les plans, ils se sont livrés la guerre, sauf que nous ne savons mais en réalité, les États-Unis, chaque année, votaient un budget spécial pour la Russie, de Russie guerre froide sans comprendre les dessous de la de la relation euh, Amérique avec URSS durant ce qu'on appelait la guerre froide surtout après la détente n'est-ce pas depuis années 80 et 90 mais il y a eu des fonds que les États-Unis mettaient à disposition de la Russie Russie bi nga xam ñoom neen c'est c'est c'est c'est demi mais bon anyway nii peut benn débat la xam ne nest pas euh, ku xool ay gëstu yu mel ni Eustace Eustace Mullins Eustace Mullins euh, voilà macha allah il a écrit un livre ça peut-être pas donc euh, ku jaram tam kooku tamit pas boobu ku jara lire la il a travaillé sur la réserve fédérale il a mis toute sa vie di gëstu sur les secrets de la Fed de Federal Reserve Donc, euh, vraiment extraordinaire comment on a créé la fête, créé, quelle était l'ambition de ceux qui l'ont créé. Allez lire ce livre-là et vraiment, il a fait plus de 30 ans de recherche sur ça, n'est-ce pas donc, euh, plus de 30 ans de recherche sur ça, je dis. 30 ans, c'est extraordinaire, n'est-ce pas Donc, je reviens à Bataille sur Donc, il y a eu un bipolarisme. Dans le monde, il y a des blocs là. Un bloc capitaliste et un bloc, euh, je vais dire, marxiste ou communiste qui se sont affrontés. Gagnent finalement en 1990 avec la chute du mur le bloc communiste a gagné peut-être sans avoir d'accord le grand Agibou Agibou le grand marxiste <laughs> Agibou c'est un marxiste pur Maintenant, il ne va pas accepter mais l'influence euh, hégémonique des communistes sur des pays européens doit cesser L'USS l'URSS a éclaté Tass, beaucoup de pays daw ont abandonné le modèle euh, euh, communiste dem euh, dem dans le nouveau capitalisme Nous créé ce qu'on appelle la série, la communauté des états indépendants qui était en 1991 n'est-ce pas donc il faut qu'on comprendre qu'effectivement, il y a effectivement il y a eu euh, déclin euh, d'une vision n'est-ce pas d'une vision du d'un faux marxisme qui incarné par une bureaucratie extraordinaire mais le capitalisme a gagné le nouvel ordre mondial était censé être un ordre mondial, parce que l'hégémonie américaine il dafa am benn benn unipolarisation le monde bi unif les États-Unis n'est-ce pas Li, terre euh, bi en relation internationale ñoom la japp moy moy nouvelle ordre mondial té loolu da ngay gis ku melni ni Wells euh, H Wells il a écrit un livre mu tuddee ko The New World Order il a écrit en 1940 n'est-ce pas xam li kon yag na le livre mu tuddee mom The New World Order li tax New World Order bi intéressé ma dama koy xol dans l'expression euh, d'un outil puissant de souveraineté bi nga actuellement mom la wax c'est le dollar n'est-ce pas le dollar américain umpalewu leen soo jëlee billet un dollar ngeen teg ko xool di nga gis ñaari terme yi xam ne termes yi war na attirer attention képp ki xam ne dafay xalaat n'est-ce pas euh, le premier terme mooy novus ordo seclorum n'est-ce pas n'est-ce pas novus ordo seclorum le nouvel ordre des siècles pour des siècles il y a un nouvel ordre qui a été décidé pour des siècles ça fait des centaines d'années parce que c'est sur le, sur le dollar américain attention bon xol bu baax a baax euh, lii tëral noonu naka lañ ko tëralee n'est-ce pas la lañ ci namm donc lii moom xam naa ne peut-être jàngat spécial la laaj sur les trois cent ans yi gars yi tëraloon depuis mille sept cent soixante six trois cent ans yi xam lañu bëgg doxalee àdduna bi yëpp n'est-ce pas donc euh, mu ngi war a jeex ci deux mille soixante six et qu'il y a beaucoup de choses, chaque 100 ans, il y a des choses qui se sont passées. je ne sais pas expliqué de Goudou, mais il y a peut-être il y a, il y a un live on l'a vraiment expliqué en détail. Mais on a mis une pyramide, n'est-ce pas, avec 13 étages, 13 étages, bien détachés, n'est-ce pas, bien détaché. Il y a un petit peu de but, de la providence, moi, le delta, le delta lumineux, pour l'a maçon effectivement, c'est une but. Euh, bëtu dajal bi benn bët bi ñu wax dajal li moom naa si après si symbolisme bi nga xam ne ñu war nañ koo gëstu en tant que musulman parce que dajal nespa est ce pas masiixu dajal ak ak ni mu mel ci aaxiru zaman nespa, est ce pas donc euh, ñu war cee bàyyi xel bu baax baax waaye ñu gis ne euh, ñu ci bind annuit coptis ñu tamit on s' est débrouillé pour que baat bi nekk treize lettres c' pas fortuit n' ce pas on en a fait treize lettres yi day nangu nañ ko suñu affaire bi ko wala nangu affaire bi xam affaire affaire elle a été approuvée notre affaire quelle affaire a été approuvée affaire il faut ñu delluwaat sur la déclaration d'indépendance des États-Unis soo delloo déclaration des États-Unis les signataires sur les 50 et quelques signataires 97% étaient des francs-maçons en réalité c'était des francs-maçons John Adams euh, George Washington n'est-ce pas Tous ceux qui étaient là-bas, n'est-ce pas Franklin, Benjamin Franklin, tous ces gens-là étaient des francs-maçons qui avaient une vision des loges maçonniques en connivence avec les Français. Vous savez, indépendance États-Unis, des Français ont, ont, agi sur ce loolu. Ils ont ont ay des euh, pour me libérer de ma donc may vais ne la États-Unis États-Unis amul ay billet yu une monnaie la monnaie américaine suma djumul fakk na yak 7 billets n'est-ce pas billet 1 dollar billet 2 billets 5 billets 10 billets 20 billets 50 billets 100 suma djumul la ah, ñi nek états-unis a ah, ah, aïcha aïcha yeen gars il y xam yeen yor dollar yi wa dollar wa dollar yeen lay waxal euh machallah yak 7 billets n'est-ce pas barañaw oui la fête le marché de la fête franc-maçon ñoom Rochambeau en France tous les grands maçons étaient de de connivence avec les Américains Ils ont aidé pour pour que ça défasse en tout cas de l'autorité britannique donc avec la guerre de ans il y a beaucoup de choses qui se sont passées par rapport à ça n'est-ce pas mais cette de le billet de 1$, dollar ah euh, vrai deux yi Macky moo ko sàcc xam leen ni Macky moo sàcc deux yëpp ndax am na kër Houston sàcc na bii bëri denc ko foofu <laughs> non damay tooñ rek damay damay sànni xeer donc le billet de un dollar George Washington moo nekk si bii bi George Washington moom gars yi bëri xam nañ euh, George Washington qu'est-ce qu'il fait n'est-ce pas euh, qu'est-ce qu'il a fait euh, dans ci biir mbir yi ci état ci États-Unis ci indépendance beeg son rôle n'est-ce pas oui Arouna en fait en réalité oui n'est-ce pas Donc, euh, George Washington, Hussein Gay, Jazakumullah Khairan. Donc, le billet de 2 dollars, on a mis Andrew, Jackson, Andrew, Andrew Jackson, euh, euh Andrew euh, Jefferson. C'est Thomas Jefferson qui est sur le billet de 2 dollars, billet 2, n'est-ce pas le billet de dollars à, à, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson n'était pas franc, c'est le seul qui n'était pas franc-maçon, mais qui était éminemment ami des francs-maçons, n'est-ce pas et qui a été dans toutes les loges, même en France, a été invité dans des tenues spéciales pour nous honorer parce qu'il a travaillé pour l'agenda maçonnique, Thomas Jefferson. N'est-ce pas C'est quelqu'un qui a dirigé la rédaction de la charte, la charte ou La charte là, n'est-ce pas euh, Charles parce qu'il avait une plantation, il avait des esclaves, et puis il parlait de déclaration de liberté. <laughs> Le billet de 5 dollars, Abraham Lincoln, c'est un maçon, c'est un grand franc-maçon n'est-ce pas euh, le billet de 10 dollars Alexander Hamilton l'a ci c'était un maçon n'est-ce pas le billet de 20 dollars Andrew Jackson lañ ci def mooy président bi gënoon casse sax ci réserve fédérale n'est-ce pas euh, c'est un franc-maçon d'habitude, n'est-ce pas c'était un maçon le billet de 50 dollars Ulysse Grant l'a ci def le grand général c'était un maçon n'est-ce pas le billet de 100 dollars rek bi nga xam billet pour gën grand ngand ci États-Unis joxuñu ko ki ko il n'a jamais été président des États-Unis n'est-ce pas Il n'a jamais été euh, président des États-Unis, n'est-ce pas C'est Benjamin Franklin. <laughs> Moi, maçon bu gën mag boo ñëpp dañoo d'accord le plus grand maçon ci le degré en tout cas ñu teewoon ñëpp si ay Philadelphie qui donne bind charte yeeg ñu doon constitution yeeg déclaration yëpp moom mooy le maçon le plus grand des États-Unis n'est-ce pas n'est-ce pas donc euh, waaw une Godwin Trust bi sax yàggul seen une Godwin Trust bi ils l'ont installé pas très longtemps non n'est-ce pas donc pour dire que les États-Unis, c'est un pays, bien ce qu'on appelle la démocratie américaine, le Capitole, le euh, euh, chambre, mais c'est qu'il y a partout les insignes avec les symboles de la maçonnerie dans ce qu'on appelle les États-Unis. Donc aujourd'hui, les gën avant de wax euh, le nouvel ordre mondial même qui a mis beaucoup c'est le nouvel ordre pour les siècles à venir le wax novus ordo seclorum mu le dollar n'est-ce pas avec des symboles de la maçonnerie avec une pyramide de 13 étages, avec l'œil qui voit tout, avec euh, une phrase bien xamé té yépp sétlu c'est en latin latin bobu tax may latin la bax nañu bayyi xel la puissance qu'on appelle la puissance ñan ñoko wara doxal ak nak lañ ko wara doxalé n'est-ce pas la la pax romana n'est-ce pas bi tax ni wara bind en latin li dafa am lu muy tekki la la pax britannica dafa am lu muy tekki lu tax Perpétuité tamit ba tey on n'a pas supprimé les mots latins dafa am lu tax la pax americana bi xam ne actuellement moo nekk en cours te di waaja waaja fomb ndax avant deux mille soixante dix neuf abale ndax lii ça a été décidé depuis longtemps n'est-ce pas la pax judaïca qui est en marche ñu ngi nekk ko tabax wala tabax Israël ba si Trump bi si moom si adepte gars yooyu la parce que ñi nga xam ne ñoo war a liggéey n'est-ce pas ñoo war a liggéey pour l'avènement du troisième temple. à Jérusalem di ay bokk bokk yi moom débat la yoo xam ne dire que non conspirationniste théorie du complot bi gars yi di wax waa waa waa waa FBI waa CIA ñoo ko créé n' est ce pas ñoo ko créé waaw alors tu as entièrement raison tu as entièrement raison il y a ce qu'on appelle le triangle maçonnique ñuy wax le triangle de la maçonnerie ce pas euh, triangle boobu Washington Paris Dakar la lii lien ñu am avec la maçonnerie euh, C'est année 1787 bi nga moy année charte philadelphie année bobu le le le franc-maçon France réunir en conclave d'accord dañuy def révolution n'est-ce pas deux ans après la révolution française bi l'année 1789 année la la première loge à Saint-Louis la loge Saint-Jacques des Amis de la saint vertu loge Saint-Louis il faut comprendre qu'il y a des liens yi ce monde là on ne peut pas l'analyser de manière isolée n'est-ce pas de manière isolée Trump travaille pour cet agenda là agenda wu agenda bu bu xóot la bi nga xam ne euh, agenda bu doy la n'est-ce pas Dakar est la pointe la plus avancée dans l'océan euh, Assane Ndiaye Dakar ça représente beaucoup de choses pour les francs-maçons en tout cas ah, Dakar fii Dakaru Ndiaye gii elle représente beaucoup de choses pour les francs-maçons n'est-ce pas Dakar duñ ko bàyyi bàyyiwuñu ko Dakar mu ngi vibrer sur les rythmes de la maçonnerie et les Sénégalais yu bëri ñu ngi toog comprendre sax la moo xew n'est-ce pas et man sax lu lu lu raglu la daal dafa raglu dafa raglu léegi nag par rapport à à à lu sax à ce nouvel ordre mondial là c'est un nouvel ordre bi nga xam ne qui eh, est satanique et eh, et eh, et, et maçonnique c'est la c'est la réalité n'est-ce pas li quand on le dit on oh, dit rien de nouveau waxuñu oh, lu bees n'est-ce pas waxuñu oh, lu bees quand on voit que il y a une volonté de gouvernance mondiale xam nga le capitalisme chaque fois mooy le capitalisme baat bi sax da kaput baat bi il euh, faut renvoyer à un marché renvoyer déjà un capital mais ce capital là mënuñu ko sans comprendre un marché n'est-ce pas un marché le monde aujourd'hui le problème du monde actuellement c'est qu'on a euh, un marché mondial n'est-ce pas euh, on a un marché mondial bien sûr, nous euh, avec la mondialisation avec la globalisation avec l'internationalisation avec beaucoup d'accords et de partenariats de coopération bilatérale multilatérale pour def de de de du monde un marché il y a une libre circulation en tout cas des biens des capitaux peut-être les personnes montent dans une mode mesure mais les biens et les capitaux gars beaucoup ñoo de mouvoir donc c'est un marché mondial qui est là mais à ce marché mondial-là, parce que le marché peut être efficient, dans la théorie du capitalisme, pour que le marché soit efficient, il faut qu'à ce marché corresponde un pouvoir politique. Il faut un pouvoir politique susceptible et capable de, régenter, de réglementer, d'administrer, de réguler euh, et de contrôler ce marché-là. Actuellement, dans le monde, il n'y a pas un pouvoir politique correspondant au marché mondial. Madame, un gouvernement mondial unique à C'est ça le nouvel ordre mondial. Vous devez faire coïncider ce marché mondial là a un gouvernement politique mondial souvent euh, pour l'humanité ils y travaillent dans beaucoup de secteurs déjà ils ont déjà ils sont déjà parvenus à pouvoir euh, l'administrer de manière mondiale dans la dimension Khalis déjà il y a dimension démarche aussi n'est-ce pas quand on est dans une économie monétaire l'économie monétaire il faut nous comprendre que dans l'économie monétaire, la monnaie est le centre même de gravité de l'activité. C'est le nerf de guerre, c'est le sang moy moom tourner l'activité et l'économie. dans la monnaie bu a un projet bi un projet du d'un acteur du Commonwealth qui s'appelle John Keynes n'est-ce pas qui avait dit quelque chose bi xamé du la création d'une monnaie mondiale le Bancor il avait il avait voulu créer une monnaie mondiale le Bancor